li leen boole. sañu ñu koo bañ. waaye moom it nee na sañu koo bañ. yàlla boole leen bokk ba noppi. yàlla boole leen bokk ba noppi. boole leen bëgg. mooy Serigne Touba rek. ab xentu. seen góori waajur. nee na moom nag. Saliou way sama ndey nee na Serigne Saliou way ndeyam waaye Cheikh Abdou Lahat waajurum nee na kee ko nàmpal ko jur kee ko yar ku leen di xëy ne ku leen di xëy baag si fii baag si fii da nga ci am la doy ndax lan fa jële ndax lan fa jële da da koo màndi da koo doy ñoom rek la ñuy roy jotuñu kenn xooluñu kenn bëgguñ dara fañ tegoon seen tànk fañ tegoon seen tànk rek luñ ci man luñ ci man suñ kemt lay gàttal danañ ko def luñ ci tële dañ ko yéene sëriñ bi nee na yéen nag yàlla da leen a boole muy ak diin ak diine wa dunia da ngeen a danoo taqaloo te mënuñoo teqali ko nee na ngeen war a defar àdduna ñoom ñu war a defar diine te ñëpp ay nit rek la. te nee na ñëpp ay nit rek la. lenn nit ñi dong. lenn nit ñi dong. kon nag kon nag. ku yàqoo fi yéen sëriñ bi nee na ku yàqoo fi yéen wala kuy bëgg a yàq wala kuy bëgg a ñoom ñi nga xam ne ñoo yor diine ñoo ko defar yéen nag yàlla la yàlla dénk àddina te njaboot gi ñu yor te njaboot gi ñu yor dañuy soxla àddina lépp luñ ca soxla lépp luñ ca soxla yéen lañ koy wax waaye suñu yittee bopp bopp ñoom lottu ngeen ci sëñ Tuubaa rek lañ ko dafa jël nañ ko bu yàgg kon kon ànd naa rafet buñ ko rafetale ci bu ngeen ko rafetale buñ ko rafetale buñ ko rafetale nag mooy. ni ngeen ko rafetale mooy duñ tege luñ mënul duñ tege luñ waaye bu leen gànt lu ngeen mën fii ak at day tukki du ngeen gis ab lettre du ngeen gis ab lettre du sàkk waaye taalibi sëñ tubaab ko yaakaar ko yaakaar bu ñu di taal mbirum àddina di taal mbirum àddina. tam nekk seen loxo tam nekk seen loxo. danañ ko wax danañ leen ko wax. waaye itam di ñaan lu ngeen ci ci man. ci def ko. ndax loolu leen di fii kenn saxul fii kenn saxul. du kon nan rafetal rek kon bay ànd bay. tool bi set ne loolu rek la gis. kon Cheikh tànk yi nga ñëw fii. sa tànk yi nga ñëw fii. ngir wóllare ngir wóllare. ak bokk yàlla ko sëriñ bi nee na yàlla ko sëriñ Tuubaa suuxat. la nekk sa xol yaa ko xam. nee la nekk sa xol yaa ko xam. ak la nga lëmb ak la nga lëmb ci dikk ak la nga yéene. ak la ci dikk ak na ko am ci daara ji sëriñ Saliou. nee na yàlla